ginnaaw am ndaje moo xam ne nii am na ko ak comité d'organisation lépp lu jëm ci màggalu Touba ndaje moom nag ñoom képp ñi nga xam ne ñoom ñoo cay saytu ay liggéey ñoom ñoo ko doon def tëju ci benn saal Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr ginnaaw bi daal di jokkoo ak taskatu xibaar yi. bi déclaration nag di aada joo xam ne nii baaxoo na koo def buñ jubee màggalu Touba ngir daal di ci indi ay leeral li jëm ci coppite yi màggal gi ñu jëm waaye itam yeesal yi nga xamante ne nii am na ci ci biir ay kàddoom Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr dikkaat na ci atum 2019 bi màggalu Touba gi ñu jëm yenn coppite dañ ci fa yéene indi bokk na ci yooyu ab semaine culturelle boo xamante ni daañu ko amal ci réewum France waaye itam rax ca nga xamante ni daanaka dafa sës ci màggalu Touba tam war a nekk xew-xew bu rëy boo xam ne nii moom ki nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit gi mu ngay fësal ni loolu lee ndamul yoonu murit la waaye ndamul lislaam la ci àdduna wëngal këpp waaye itam ci réew bu Sénégal ginnaaw bi mu sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khadr dikkaat na ci mbooleem programme yi nga xam ni daana am ci màggalu Touba mu gën koo yees yeesal lu ci mel ne caravane bi nga xam ne daañu ko amal ñu tuddee ko léegi sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba waaye itam mbooleem conférence yi nga xam ni day am ci biir màgg Touba njàngum alxuraan mi waaye tam mu di dikkaat li nga xam ne ni mooy matukaay yi ñu fas yéenee jël ci nawet bi nga xam ne ni nemmeeku nañ ni jamono ji day gën dugg ci biir màggalu Touba lii di aada joo xam ne moom Serigne Bassirou Mbacké mi nga xam ne mooy kàddu yoonu murit baaxoo na koo def bu ñu jub màggalu Touba amaat nag yeen ndaje yoo xam ne nii da koy am ak taskatu xibaar yi waaye bi la yoon nag mooy yoon bu njëkk di ubbi li xam ne moo jëm ci liggéeyu màggalu Touba ci ab fàttali nag boobu leen ndaje ay kilifa yu takkoo takk yoonu mu teewoon nañu ko waaye kilifa yi nga xam ne nii dañ leen di xàmmee ci saytu lu jëm ci yorinu màggalu tubaa